ñaar ba ñetti weer facture ndox yi wàññeeku waaw waaw waaw waaw waaw jaajëf Seydina Omar Ba <laughs> tey Walf Quotidien lam ñu dikke yéen kaay gii di Walf Quotidien dafa xëyee dellu soir ci lu jëm ci Ousmane Sonko bi nga xam ne jamono ji fu nekk dem na fa ngir ñu jox ay fiches de parrainage am loolu sottiwul démb ayib defee dafa demal fële ca caisse de consignation ngir récupérer les attestations waaye tamit foofu sottiwul mm-hmm. yéen kaay gi euh, euh, mu ngi euh, jël boppam jébal ko ñi di juróom-ñaari saa yu seq conseil constitutionnel noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy Soleil yéenekaay gii di la soleil xëyee dellu siwaat ci lu jëm ci Ousmane Sonko ngir mu bokk élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay yi dafa xëy daal koy méngale ak ab po la noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ndax démb ma woon ci caisse de dépôt et de consignation moom euh, moo dem fële ci ministre d'intérieur waaye fépp dem gars yi dañ leen xamal du fi noonu la ko yéenekaay gi di la soleil xëy fësale euh, Sud dafa xëyee dellu siwaat ci Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ji neexul ba neexul waaye ma nga fépp Euh, bi ci jiitu mooy ñu delawaat listam ci électoral yi ba ci des aussi mooy di procès ak ak Mame mhm. mu soxal mbiru Prodac ñu ngi ko jàpp ni ki ñeenti fan ci weeru ko janvier noonu la ko yéen a kaay gi Sud Quotidien xëy fës euh, le ak Sonko dañuy jàpp ne ñoom ñetti mhm. ñi seen bokk dara bu wóoru ci noonu la ko yéene kaay gi di la témoin xëy fësale ci namar ba Dakar Times dafa xëy dalal Robert Bourgi ci laaj tontu ci mhm. a mhm. euh, noonu la ko yéene gi di Dakar Times xëy fësale critique xëyee dellu si waat ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal waxee tamit ci Amadou Ba mi nga xam ni jamono ji fu nekk ay ay ay kàngam ñu nga fay bàyyeekoo am ah. mm-hmm. eh, di ko tabb def ko mu doon seen i candidat yéen i kaay yi nga xëyete yi nga xam rek ak candidat bi ñuy duppee double XL ma ngoog euh, yor yor bi eh, ñi ko njëkk a joxoña ah, wala ñi bokk na si ñi ko joxoñ ci ay ponkal ne war naa ah, mooy seen mbër mooy waa parti socialiste mm-hmm. yéen kaay gi xëy tey ji dañu xam ne histoire partialiste nee na nguur la réew euh, parti la boo xam boo xam ne ni ci nguur lañ ko xamee woon waaye tey ji dafa dem ba finalement euh, parti la buy langaamu tax mm-hmm. yéen kaay gi xëy tey ji dañu xam ne parti socialiste na mu na euh, mu sosoo mm-hmm. xeex yi mu jot jaar ba ña nga xam ñoo ko yore tey noonu la ko yéen kaay gi di yor yor xëy fësale l'info élection présidentielle 2024 yi ñu dégmal doon na lu yitteel waa Sénat bu Amérique ñaar ci ay sénateur ñoo jël ko mbir yi daal di koy porté foofule mhm. gars yi njorte ne ngi jëm ci élection yoo xam ne ni buñ deful ndànk lu nekk mën na am fi ci biir réew mi noonu la ko yéene kaay gii di leen foo xëy fësale ngoog 24 euh, heures président Macky Sall li ko tax a jóg mooy maanaam dëkkin wi mu mhm. doon dëkkin bu mu ci ayib euh, ba tax na loolu sax ma ngay sàkku ci ki nga xam moom moo di Abdoulaye Sow muy jëriñu dékkuwaat urbanisme Euh, mu gaawantoon ci mhm. projet yi nga xam ne nii daanaka amoon nañ ko muy jéem a rénover euh, rénovation urbaine yi ak mhm. euh, it programme Sénégal zéro bidonville mhm. loolu kon mu nga xam ne démb ci ndajam conseil des ministres turbine lam ñu dafa xëy dellu siwaat yi nga xam daanaka partenaire producteurs li ko waral moo di campagne njaay ah, ah. nga xam ay béykat la ñu doon ne duñ jël seen gerte di koy jaay nguur gi ndax 280 yi ñuy wax dañ jàpp dafa tuuti moo tax ñu bari si ñoom ñu ngay jël seen gerte gi di ko mbapat di ko ah, jaay ay 300 350 jàpp 600 francs CFA Euh, gars yi nag lii moom bu dakkul ba moytu Sonacos ci tëj ci tëj ay butam la jëm mhm. ci jamono jujilee waa aar sunu moomeel ci njiital Bassirou Ba mhm. ñoom ñi ngi Sénégal doda di sàkku ñu tas sena senan ndax ñoom béykat yi gisatuñ ci seen bopp l'évidence fa la xëy yéen kaay gi di l'évidence xëy dellu siwaat ci ndaje moom nga xam ne waa aar sunu moomeel doon nañu ko seex dem ak taskatu xibaar yi mhm. seen yéene moo doon organiser ab doxum ñaxtu waaye mbir yi mu jot a antu moo leen ko tere ñu mujjee jël mbir yi soppi ko def ko ab ab ab ab jëriñ mm-hmm. eh, ni dañ ko jagleel wàllu mbéy mm-hmm. fexe ba lu jëm ci loi domaine national bi kon ñu gën ko eh, referaat ba su ko defee ñoom béykat yi mën cee jot maanaam suuf si mm-hmm. waaye tamit ñu ngay ñaawlu nañu yore eh, mbay mi ak it di ñaawlu waa taxawaay waa nànk ne kon duñu euh, renouveler seen instance ba tax ñuy sàkku ñu tas seña noonu la ko yéene kaay gii di l'évidence xëy fës le quotidien lu mu ñëw faram fàcceel yéene kaay bu ñu xaar mook seen lekk wàññi njëgu courant bi ci diggante 2023 jàpp 2027 ndax li ko waral mooy la nga xamul doon xaar ci wàllu production war a bàyyeekoo ci gisement bu yaakaar mu jute antu ba tax ñu jàpp ne moom Senelec pour mu mën a dox dafa luye ay centrale thermique ba tax ñu jàpp ne daal bu ñu xaar jamono ji njëgu courant bi wàññeeku ñu ne la ko yéen kaay gi di la ko tëjee xëy fës bés bi le jour dafa xëy amal ab ab retron ko ci wàllu jama Euh, di ñu fàttali nag euh, première fois bi nga xam ne mm-hmm. ay ay ay ndaw yoo xam ne ONU yabal nañ leen fi mm-hmm. découvrir nañ ci lu ci tolloog juróomi ja juróomi jama yoo xam ne ni euh, ñu ngi toll ci zéro virgule 64 carats mm-hmm.

ko teg loxo fële ci kër Massar ab ab soxna moo ko sàccoonoo hmm. soxna si ko sàccoon nag finalement mujj nañ ko teg loxo euh, kenn euh, ci euh, ay dëkkandoom yi moo ko yore noonu la ko yéene kaay gi xëy fësal aussi dañu may ñu wax ci li nga xam ni moom la public bindal na hmm. mu soxal pouponnière bu Ndella Madior Diouf nee nañu kenn ci ka nga xam moo doon liggéey ca barab moo filmé taxaw melokaanu xale ya hmm. ba tax ñu yëkkat seen kàddu kon di artu état bu Sénégal lan la ñuy xaar ci mbir mi noonu la ko yéen kaay gii di le public xëy fësale euh, stade CAN 2023 El Hadj Aliou daanaka génne la ab liste bu toll ci juróom fukki ak juróomi soor waaye ci ñooñu la am na si ñoo xam daan leen seppi uh-huh. ñoom fas yéene yóbbu nag moom oustaz moom mi eh, di stade eh, moom Aliou Cissé kon mooy le milliard uh-huh. noonu la ko yéene kaay gi stade xëy fësale suñu lamb lam ñu jukkil wax ci combat gi dox ci diggante eh, Reug Reug ak kii di Bombardier uh-huh. combat bi kon ñu ngi ko jàpp ni kii dimanche démook ñaar fan ak ñeent si weeru décembre